Rewmi 24 TV. dal leen ak euh, jaamu ci xibaar euh, lu doy waar ci ki nga xamante ne mooy Cristiano Ronaldo di joueur boo xamante ne ràññee nañ ko ci àdduna bi ñëpp a ko xam moom mii di Cristiano Ronaldo nag jamono yi nga xam ne rek ma nga fële ca réewu naare di al euh, al ahli al Nasser al Nasser la Cristiano Ronaldo nekk mais lu ci doy waar mooy Cristiano Ronaldo bu nga xamante ne. photom bi moom mooy def polémique ci euh, réseaux sociaux yi wax ne Cristiano Ronaldo moom ak boxeur bi ngeen gis di euh, Mike Tyson euh, Cristiano Ronaldo dafa takk dëgg la wala du dëgg ñu ngi laam-laame ñu ne est-ce moom moo ko jox ndax mook Sadio Mané ñoom ñoo bokk li nga xamee ne mooy club kon daal daal dinañuy gis bracelet boo xamante ne dëgg la am du dëgg nag mënuñu koo wax waaye xam nañ ne daal photo bi moom mi ngi circulé bu baax a baax ci réseaux sociaux yi ñu ngi wax ne rek Cristiano Ronaldo bracelet bi daal Sadio moo ko jaar Chris moom moo takk bracelet bi te ku ne xam na ne rek Sadio Mané moom sénégalais la waaye it ku ne xam na ne Casaséer la xolam Ousmane Sonko la ñu jàpp ne rek moom moo ci ne. kon daal photo boobu polémique la boo xamante ne rek ña nga naan Cristiano Ronaldo takk na bracelet la boo xamante daal Sadio Mané moom moo ko jox kon Ousmane Sonko jamono yi rek moom international la.